asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences xanaa euh, békki békki El Hadj Ousmane Pouye Tagidine seede si nga xam ne seedeel noo ko suñu mag di suñ kilifa ñu ne ko El Ibrahima Dramé macha allah macha allah mu koo xam ne ci biir famille bi la nekk te yàqu ci dara lépp lu fi xotti ko moo koy ñaw kon lu mel nii bu fekkee ne daanaka ma ne ab jàmbur te ab jullit la te it ku am xam-xam la taxaw seedal ko seede su mel nii noonu famille bi yëpp ñoo ci bokk bég di di ko gërëm eh, waaw lu neex a ngi nii lu neex a ngi nii famille bépp daal famille bépp famille bépp euh, Cheikh Ousmane eh, ñu ngi lay ziyaare bu baax a baax a baax ñu ngi lay ziyaare bu baax a baax puy eh, mënoon ngaa te xam-xam bu bari nga yor xam-xam bu bari nga yor xam ko xam-xam bu bari nga yor dama ne ba nga reggee ñi regguñu de xam naa la bu wér xam naa la bu baax a baax a baax lépp mënoon na cee bañ ñàkk waaye nag xol bu rafet xol bu yaatu famille bi kontaan nañ ci yow nan la bokk déglu nan ko bokk déglu. kon fi may jeexalee Cheikh Ibrahima Drama maa ngi lay sant kontaan naa ci yow bu baax a baax sant boo xam ne bii. amul fu mu yew amul àpp ci suma xol laa jëlee lii may wax yëg naa léegi ne yaa ngi ñaanal réew mi waa réew mi nag xamuñu la waaye ñii la ci xam xañ na niiwu nañu ndax dama la yetu kun fa yakun yaakaar na ne yor nga ci bu rëy la sa baay doon def ak sa maam ya ma naan nga ci bi màndi Darama lii may wax sama xol laa ko jële te dem ko yëg te dem ko gis ndax bu may waxtaan ak yow waxuloo ak jaaxil man duma jaaxil kon may wax ma di ko dégg ma di ko yëg di ko jiis ndax dama wutoon xam-xam dama yaakaar ne mar day taan yi mar day taan yi maa ngi fàttaliku benn wax benn yeefar dafa nekk di bàkku dafa bari doole mooy kay mooy abo jaxalin ñu ne ko sa bàkku de lu mu bari bari bari doole ak bari nit ak ngemba yi ngay ngemb lu mu baree doole boo siinee kër Omar ibnul Xataab taxawal boo siinee kër ab Ali ibn Abi Talib taxawal waaw mooy ne borom xam-xam bu bakku bi siim sa kër war na taxaw ndax li ma gis ci sa kër day doy na ma suur na ma bari na ñuy bakku ci senegal lii laa man lii laa xam yooyu wax la tonnevive de mooy def bruit te yaa ngi ànd ak sa sago ànd ak sa jàmm xam yaa ngi reex ci sa xol boo dégg gaa yi di bàkku ndax ni ngi leen mënee du jàmm kon Cheikh Dramé dañu ne ku sant nit doo sant yàlla man la yaskuru naasa la yaskuru laaha ah, waaw ku sant nit doomu aadama doo sant yàlla moo tax ma walbatiku di la sant dafa am lu ma la ñaanan ko yegg ci dama ko jiis ndax bu may waxtaan ak yow waxuloo ak jaaxil man duma jaaxil kon li may wax ma di ko dégg ma di ko yekk di ko jiis ndax dama wutoon xam-xam dama yaakaar ne maar dey taan yi maar day taan maa ngi ku benni wax benn yeefar dafa nekk di bàkku mu ngi ne dafa bari doole mooy kenn mooy abu jaxal ñu ne ko sa bàkku de lu mu bari bari bari doole ak bari nit ak ngemba yi ngay ngem lu mu bari doole boo siine kër Omar ibnul Xataab taxawal boo siinee kër ab Ali ibn Abi Talib taxawal mooy ne borom xam-xam bu bàkku bi siim sa kër war na taxaw ndax li ma gis ci sa kër day doy na ma suur na ma bari na ñuy bàkku ci Sénégal lii laa man lii laa xam yooyu wax la tono bi de mooy def bur wi te yaa ngi ànd ak sa sago ànd ak sa jàmm xam naa yaa ngi reex ci sa xol boo dégg gaa yi di bàkku ndax ni la sa baay doon def ak sa maam ya ma naan nga ci biir màndi Darama lii may wax sama xol ko jële te dem ko yëg te dem ko gis ndax bu may waxtaan ak yow waxuloo ak jaahil man duma jaahil kër war na taxaw ndax li ma gis ci sa kër day doy na ma suur na ma bari na ñuy bàkku ci Sénégal lii laa man lii laa xam yooyu wax la tonovir de mooy def bur wi te yaa ngi ànd ak sa sago ànd ak sa jàmm xam yaa ngi reex ci sa xol boo dégg gaa yi di bàkku ndax ni ngi leen mënee du jàmm kon Cheikh Dramé dañu ne ku dul sant nit doo sant yàlla man la yaskuru naasa la yaskuru laaha waaw ku dul sant ni doomu aadama doo sant yàlla moo tax ma walbatiku di la sant dafa am lu ma la ñaanan ñaanoon pour nga defal ma ko sant yàlla man la yaskuru naasa la yaskuru laaha ko mooy nga dimbali waa réew mi ci xamaan yaa ngi ci loolu le nekkal foofu le nekkal foofu le bu baax a baax maa ngi lay encouragé te yëgal ne maa ngi ànd ak yow guddi ak bëccëg ak mbooloo mi nga àndal kon Cheikh Dramé ci yow lay jeexalee dimbalil waa réew mi kon maa ngi leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah ñaanoon pour nga defal ma ko mooy nga dimbali waa réew mi ci xam yaa ngi ci loolu le nekkal foofu le nekkal foofu le bu baax a baax maa ngi lay encouragé te yëgal ne maa ngi ànd ak yow guddi ak bëccëg ak mbooloo mi nga àndal kon Cheikh Dramé ci yow lay jeexalee dimbalil waa mi ah, waaw ku dul sant nit doomu aadama doo sant yàlla moo tax ma walbatiku di la sant dafa am lu ma la ñaanan ñaanoon pour nga defal ma ko mooy nga dimbali waa réew mi ci xam yaa ngi ci loolu le nekkal foofu le nekkal foofu le bu baax a baax maa ngi lay encourage te yëgal ne maa ngi ànd ak yow guddee ak bëccëg ak mbooloo mi nga àndal kon Cheikh Dramé ci yow lay jeexalee dimbalil mi kon maa leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Cheikh Ousmane Pouye Tadjou. waaw ginnaaw bon ko bokkee déglu euh, muy kàddu yu rafet muy kàddu yoo xam ne lépp a euh, mu jóge ci El Hadj Ousmane Pouye Tadjou jëm ci Akhlou Dramé ndax kat. képp koo xam ne si yëkkati nga ah, wala nga wax jëmee ko ci Alaaji Ibrahima Dramé Sénégal gépp la war a concerné moo jëkk a jóg ànd ak patriote yi te ba mu ànd ak patriote yi làqutuwul tuul moo fi jëkk a taxaw ne Ousmane Sonko kuko laal ku ko laal da nga taq ban te ku ko laal da nga yàqu ku ci dugg da nga yàqu da nga seey te loolu moo xoon mi ngi feeñ noonu nag Dramé dañ sant lépp lu ñu bokkaale dañ koy moyu waaye yoon may nañu yoon may nañu ale la ñu dettali suñ gént yoon may nañu it ñu tàllal suñ loxo ñaan yàlla te bari na bari na ah, lu ñaan yàlla bari na mu may na ko waaw moo tax ak jub akuk jubal akuk wéral akuk leeral ak bëgg sam réew ñu ci lool dong lañ ne lépp laaru bokkaale fee lañ ko sànni ca jamono yu jëkk ya boo nee Dramé dañu naan kañi kañi kañi mais kañi yooyu dañ ko mujj a bàyyi ndax day kan ko baag kan ko baag rasulullahi sallallahu alayhi wa waaw ñu jënd ak kañ yi def ko aw sant muy kànji kon nun xamuñu bokkaale xamuñu bokkaale waaye mën nañoo ñaan de bilaay mën nañoo ñaan li ko jëli ci kiis xel mu tëju bilaay boo di Dramé des na dajji sam xel ubbi waar katu ndëddoor marto kon ñoo ngi ziar bu baax a baax a baax nag te ñaan jàmm yàlla na yàlla suturaal yàlla na yàlla suturaal Alaaji Ousmane Pouye képp ku sant Dramé mi ngi lay ñaanal jàmm bis àndoo man da Seydina Ousmane Dramé a ah, la réveil des consciences yàlla na buur yàlla suturaal yàlla na buur yàlla sa tàggaloo ak Macky Sall te tàggaloo ak Macky Sall tàggaloo ak Sall Ousmane Sonko projet bi nga teg na ko yàlla ko suñu borom dogal yàlla na suñu borom dogal puis sa ndoof jaa ngeen jëf jaa ngeen